sëñ Mor Lam suñu bi seet na ci ñëpp ngi siyaare bokki taalibe yi bàyyi seen yitte yëpp ñëw kenn ku ne sa bëgg yàlla na ko am ci darajee borom Tuubaa sëriñ bi moo ngi jox sa wàccuwaay bu baax a baax moo ngi ñaan yàlla nga gudd fan lool wax leen amin yàlla na yàlla guddal sa fan te la te may la ay milliards nag li tax ma bëgg nga am ko. mooy da di ab tab denc loo dara ëllëg loo yor borom Tuubaa ko fi bàyyi yow loo yor borom Tuubaa ko bàyyi ci yow lu lu fanaan ci yow daa guddee ñëw xol bi ci yow ma gis ko <laughs> bariwut ñu ma ko gis de dafa am xeetu doxin woo xam ni ku ma gis nga di ko doxee man dama lay bëgg man mii maa gënoon a xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg daan daje man mii loolu waykat bi naan xamoon naa ni daanu daje man xamoon naa ni lu mu yàgg yàgg daanu daje fi ne boo ko bëggee ma bëgg ko te sëñ bi dogalu ko du am bi ko sëñ bi dogalee képp lay am nga bëgg ko lool ma bëgg ko lool te sëñ bi bëggut moom du am bis bi ko sëñ bi bëggee rek lay am wax naa la fii keroog mané dama tok dama tok ak ben way mu ne ma kañ ngay dem siñ sa siñ ma sàmbalum ma ko xanaa bokku siñ tuwaa dogalee ah kii ma kii ma ko laaj mi ngi ni far mu ne ma siñ seex kañ ngay dem siñ ma sàmbalum ma ne ko may li bis fay dem xanaa bokku siñ tuwaa dogalé rek bis bu ko siñ tubaa dogalee bis leem yow lila japp ta te ma danoo bokk lu ñu lëkkee ki def nii nga mel moo def ci man nii moo tax faw danoon ndaje te ndaje dajee ànd barke Xaadimu Rasuul ee eh, ee eh, yàlla na ngeen gudd fan man nag xam naa ni lu lay jiiñ am nga ko man waxuma wax yii de lu ma wax dama koy teg fu leer dafa am ñaar yoo xam ne ci lay natt nit man ku ma lamb ku ma lamb gisuma ci yow loolu rek xam naa lu la jiñ du dëgg bandi nga barke Cheikh Ahmadul Xadim ñaara ngi yoo xam ni ku ma lamb man càmbar la gisuma ci yow loola rek xam naa ni dana la gaa yi la bëgg jiñ la dara waaye doo dara te ñaar yooyu bu ci ne gis naa ko ci yow bi njëkk mooy xasaayit dafa am ñaar yoo xam ne man su ma bëggee xam ku baax ñaare yoo laa ko xam ñaar yoo laa su ma gisee noo def xasida ak lu la jaral rek dama daal di xam ki nga doon te ñaara ngi natt naa ko ci wax xasaayit ak Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima ku ko boole ci yif yaa ngi ci yif yi ku ko jéem a génne ci yif yi ci amoo dara té nat na la ci xasida gis na ni nga ko def bëgg xasaayit motax amo bis bo yangul bis yépp ngay yangul yow Sidi Ibrahima Fall ni ko def ku ñew fi ku ñew fi nokku yalla nokku yalla nokku yalla mana mana ci kër gi xamni ni kërug Baye Fall kër gi da Baye Faale barké Cheikh Baye Fall sëñ Cheikh xam nga soo ma dee dagg damay bàyyi ngay wax té dama la bëgg soo ma dee dagg bu ma doon dag timir ma lay bàyyi ngay wax timir ndax dama la bëgg min yàlla ko bokk sëriñ bi yalla nga gudd fa lu la jiiñ mi ngi ci yow li gaa yi waxut mopp li ni wax borom Tuubaa nii nga ko def ku ko ku ko ne def lu la jiiñ mi ngi ci yow waaye ma di la wax benn baat bii ne nanga ko jàpp tey ci rajo yaay wax te day dem fu ne Tuubaa moom lu fay wax na leer ndax lépp lañu yóbbu neexoo bëgg ndax nii nga def boroom Tuubaa ku ko ne def sëñ bi teg la ci kaw gaa yi kenn mënu ci dara waaw waaw noonu borom Tuubaa yi ba tey ñu ngi fi noonu borom Tuubaa yi duñ fi jóg waaye ñi niy bañ mooy ñi saf sàpp sëñ Bamba barke Xaadimu Rasuul man nag jàpp naa la téye naa la fonk naa la te ñëw naa man nag ñëw naa fenn laa commencé wax te ba ma fa duggee ba tey génnuma fa muy Seexul Xaadim gis nga def sans waji ni ni ma bëgg ku ko ñu def rek ma boole la ci bir affaire bi ku ko ci defut ku la mëna jur ma la né ndax man kenn duma tardel borom tuba képp la gëm man benn bët lam borom tuba la ko xol man fi né bo doon dem ci yalla ka ñëw dama lay xol ni rek nga dem a dem ba ñëw ma xam ku la rek nga ko fu naaw dara wu ma man yoy gëndiwu man señ bi rek señ bi rek ngay tek ma japp la 100% leneen lo meuna indi bo do naaw ak dikki dama nga xar fi rek doon nga don ben way moroom la dem man dama jommi ba nopi jinne ju mag jema jomal ba nopi ñi fi ne ci ay gone mënuñ ci man dara neena la borom tuba lay wër bu nekkon kiri koro dem na man sa waa rek ma jor borom bu mu weex mi mom rek ma saf mom rek ma ñor motax ni nga mel yow sax du ma la ko waxul woon kenn waxul la ko waroon ngaa xam ne daanu daje. lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 boo bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc